voilà euh, papa. voilà donc mbokk internet euh, mu nekkoon verdict bi nga xamante ni euh, donc si alors Adji Sarr. mais Xali Njaay mooy wax fële moo tax fële lay waxee. waaw waaw waaw. misaal mi ngi nii misaal am. kii kan kan la. waaw waaw waaw. man donc euh, yéen ñu ñuy teewlu ci Sénégal 7 comme euh, ni ngeen ko comme ni ngeen ko gisee euh, comme ni ngeen ko gisee rek affaire bi nga xam ne ni moo sëkuween le landerneau politique tey am na. aboutissement parce que euh, juge bi daan na Ousmane euh, Sonko ñaari atu kaso deux ans ferme moom ak euh, Ndeye Khady Ndiaye Ousmane kon juge bi teggi accusation de viol yi kon ah. daal di retenir surtout corruption à la jeunesse donc daal di koy daan ñaari atu kaso ak alamaan bu toll ci six cent mille francs maanaam juróom benni eh, ñaata waaw francs CFA donc Ousmane euh, Sow euh, Ndeye Khady Ndiaye tamit mi nga xam ne ni Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne ni aussi mooy euh, propriétaire salon Sweet Beauté moom i tamit mu daan ko ñaari atu kaso pour incitation à la débauche moom i tamit mu war a fay alamaan six cent mille francs six cent mille francs CFA kon mbir mi fa la fa donc mu ngi noonu incitation à la débauche nag bu ma koy xam naa Euh, tekki ci Kocc euh, Barma mooy daal euh, soññ nit ñi ñu jublu ci def naka sudul noonu lu dëpp dëppoowut ak yenn doxalin yi kii demee noonu en tout xam naa ne traduction bi du exact bu baax a baax mais loolu lay jóge incitation à la débauche kon mbir mi fa la mujjee léegi nag lu des mooy daax dégg nañu maître et la Diouf sànq mu ne daal même bu ñu amul victoire totale am nañu victoire parce que condamné nañu Ousmane Sonko deux ans en ferme mais aussi leneen question bi nga xam ne ni mooy posé wu mooy ndax les avocats les deux camps dinañu def euh, appel parce que aussi verdict la bi nga xam ne nii ñu bëri jàpp nañ ne c'est attaquable donc est-ce que dinañ def appel wala déet est-ce que ñoom Ousmane euh, ñoom euh, metre El la Diouf mi nga xam ne nii notamment Euh, verdict bi satisfaire leen totalement parce que bu ñu sañoon aussi ñu retenir le viol est-ce que ñoom itamit dinañu dugal appel loolu dara wóoraguñu ci est-ce que avocat Ousmane Sonko yi tamit dinañ attaquer la décision loolu tamit euh, yeeguñu yàbbi ci benn yoon donc mbir yooyu yëpp dinañ ko seetlu mais aussi deux ans ferme ah yaakaar naa mooy deux ans yi nga xam ne nii ñaari atu yi nga xam ne nii dañ koy tëdd est-ce que tamit euh, dañuy jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko mu tëdd ndungu sin seetlu nañ ne fan yëpp këram dañ ko barricadé par les force de l'ordre et tout loolu lépp ay mbir la yi nga xam ne ni war nañ ko xóotal deux ans ferme Ndeye Khady Ndiaye moom Ndeye Khady Ndiaye léegi la ñu romb ci oto di dem donc tegu ñu ko loxo wala tegaguñ ko loxo hmm. donc deux ans fermam yooyu tamit xamaguñu exactement il faut ñu am éclairage benn juriste mu mën ñu expliquer leen lépp mais retenez deux ans après deux ans yi nga xam ne ni coow li bëri woon na affaire boo Beauté am bay am Ousmane Sonko bàyyil Adji Sarr donc deux ans de prison ferme la mujjee kon contre kii di Ousmane Sonko mi nga xam ne ni euh, juge bi lu mu retenir mooy corruption à la jeunesse daal di koy daan kon ñaari at ñaari atu kaso yoo xam ne nii da koy tëdd kon euh, mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi foofu la foofu la toll waaw euh, mbokk yi sànq dinañ euh, apercevoir ko nga xam ne moom mooy Ndeye xadi njaay ginnaaw euh, ba euh, verdict bi nga xam ne euh, wàcc na fii nga xam ne mooy tribunal bu Ndakaaru à préciser nag euh, pour muy claire euh, le juge euh, moom dafa disqualifier li nga xam ne moom mooy les faits de viol yi nga xam ne tey répétitif am na ñu ngi leen ko mais si lu mu ko daan daal mooy menace de mort. ak menace de mort bi sax il paraît waaw menace de mort ngi dégg suñu confrère bi ne moo ñu fa moo ñu fa waaw waaw de mort bi man nañu leerul rek mais menace de mort bi il paraît daal corruption à la jeunesse le retenir. mais menace de mort bi aussi comme gars yi ñu ngi naan retenir na ko wala retenir ko ñu def prudence rek daal di jàpp bi nga xam ne ni c'est sûr que ne retenir na ko muy corruption à la jeunesse donc menace de mort bi ñii ñu ngi naan retenir na ko ñii ñu ngi naan retenir ko et tout et tout mais loolu lépp après rek ñu vérifier daal di xool. affrontement yi mu ngi tàmbalee am ah, voilà Bisaan euh, fi mu ne nii euh, affrontement yi mu ngi tàmbalee am alors si si si si biir dëkk bi déjà université. Euh, léegi-léegi ñu ngi may signalé que côté boobu aussi ndaw ñi tàmbali nañoo génn euh, mu nekk conséquences yi nga xamante ni euh, moom la nar a indi si bilee condamnation à deux ans ferme dossier boo xamante ni mbirum viol ak viol répétitif ak menace de mort la waaye boo xoolee liñ ko tëjee Euh, mën nañu wax sax du mbirum viol maanaam euh, li nga xam rek moom moo di euh, corruption de la jeunesse lañ ko toppee Ndeye Khady aussi si fàttali ni dañ ko doon toppee complicité pour viol mais moom daanaka tëjuñ ko si loolu ñu ko tëjee incitation à la débauche di jëfandikoo ay xale jigéen yoo xamante di def ñoom si ndaka sudul noonu maanaam di leen jaay yooyu noonu loolu aussi moo nekk li nga xam rek moom mais li ma la mën a xibaar daal mooy tembe Euh, fi mu ne nii ñàkkul ne nag am na si ñoo xamante ne fi mu ne nii dinañ insatisfait wu si bile verdict donte maître El wax na ko ñoom tamit seen côté amuñ si satisfaction total ndax jàpp nañ ne bu ñu sañoon fukki at yi la ñu tëj euh, kii di Ousmane ah, Sonko ñaari cas yëpp am nañu motif parce que aussi euh, mën nañ ne ñoom maître El Hadji Diouf bu ñu sañoon ñu tëj waaji retenir fait de viol bi maanaam tëj ko tëj ko dix ans de prison mhm. mais tamit sànq dégg naa ko ci ay kàddoom mu naan am nañu am nañu am nañu am nañu victoire quoi mais du victoire total parce que tamit mais aussi kaabale muy la défense aussi mën nañu aussi attaquer euh, attaquer attaquer Verdun bi te certainement aussi dinañ ko def même bu dee euh, yeeguñu yàbbi jëm ci loolu parce que aussi corruption à la jeunesse ñu daan ci nit deux ans de prison chambre criminelle est-ce que dina faral daan nit deux ans de prison d'habitude ay peines yu gën a dëgër lay daani donc ñoom ci seen bopp kon certainement peine bi satisfaire leen mais aussi xam naa ne dinañu dinañu dinañu dinañ def aussi les avocats euh, ñoom maître El Hadj Diouf ñooñu mën nañu xaar ci ñoom aussi ñu def appel daa mel ne da nga am lu bees Pa Moussa doon na ma wax naan ma bu ñu àttee dossier boo xamante ni euh, si chambre criminelle la euh, cette condamnation elle est définitive maanaam fi mu ne nii donc mën nañ que si comme chambre criminelle lañ ko àttee euh, juge bi dogal gi mu jël loolu la ñuy retenir maanaam avocat Ousmane Sonko yi doo du dootuñu mën a am dem def li nga xam ne rek moom donc amul appel ku ko wax kon euh, muy na Pa Moussa Sow Pa Moussa Sow aussi di juriste di juriste xam-xamam màcc aussi ci wàllu yoon donc expliqué na ko kon euh, ci bu ñu sukkandikoo ci Pa Moussa Sow mi nga xam ne ni ab juriste la xam-xamam màcc kon nee nañ amuñu droit def appel donc faut retenir cela aussi amuñu droit def appel selon faut bien préciser. d'accord dafa mel ni am na am na ñu taataan donc ñu bàyyi wàllu xel rek. Euh, parce que comme fi mu ne nii kenn ku si nekk da ngay jël son kenn ku si nekk également da ngay bëgg a wane. Ah, ñu tege bi bëri na fi loolu buuxante bi bëri mais aussi tamit foo ñu waxtaanee aussi. coow li mandat bi est-ce que mun naa mandat waaw loolu la aussi loolu tamit euh, bu ñu mënee jot benn juriste mu expliquer ñu parce que euh, ndaw si Ndeye Khady Ndiaye deux ans ferme lañ ko tëj deux ans ferme dañ lay jàpp tëj la mais ndaw si génn na léegi yéeg ci otoom dem donc euh, loolu aussi si nee na maanaam nee na à tout moment jàpp à tout moment mën nañ la mhm. laaj nañ ko ndax tëdd bi lay door mhm. nee na à tout moment ko soobee mhm. def benn mandat d'amener ñu dem jëli bi ok kon loolu tamit indi na si loolu aussi loolu aussi maa jiite si man kese. kenn du wax. il faut que mu am ku téye micro yi. tamit man tamit man tamit man tamit man tamit man tamit man il ne peut pas. a dimbale ñu rek dama leen ko ñaan rek s'il vous plaît dañ leen ko ñaan dañ leen ko ñaan si ginnaaw ñëwal si ginnaaw fees ko déedéet retour retour. waaw mi ku may lekk lekk waaye ci fees oto mu am. problème ma dellu dellu si ginnaaw. c'est pas commissaire s'il vous plaît. dellu si ginnaaw. deux deux deux table bu gàtt mënu ma ko bépp table bu gàtt duñ ko téye. El Malick dañ koy sàq si digg bi El Malick grand xoolal da ngay jege si fii. non non da nga koy wër yow li ngay def kaay taxawee kaay taxawee non grand jege si fii. non grand mënoo fi xaj ak téléphone. non nga téyel ma ko laa non mënuñu ko téye on a 100 micro. non bu ma nekkee ci ginnaaw non du ma téye téléphone. kon ñëwal ñëwal. du ma téye téléphone. fi ñu taxaw nii. ah vraiment mën nañu ko may son. ok exactement. li ñu bëggoon ñu may ñu trois personnes ñu téye micro yi parce que on a plus de soixantaine de micros. Euh, seen version par rapport ak euh, verdict bi nga xamante ne euh, donc jot nañu ko maître El Hadj Diouf ñoom moom ñëw na donc moom wax na nan la gisee verdict bi fi mu amee satisfaction ak client am fu mu amul satisfaction léegi nag ñoo ngi xaar. Euh, avocat Ousmane Sonko yi ak avocat euh, Ndeye Khady Ndiaye ñoom tamit ñu addu si yëf yi euh, ni ñu ko jàngatee ak verdict bi nan lañ ko jàngatee donc ñoo ngi seen metre Bamba Cissé maître Ciré Clédor Ly donc d'autres bon xaw na ñu bari ah c'est c'est dizaines d'avocats yoo xamante ne